jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ak ñu koy topp ci site internet bi di Buzz SN Sénégal li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek kat yi nga xamante ne rek njiital gëm sa bopp daal dina koy yëkkati jëfal ak sargal kii di pap Alé Niang mi nga xamante ne rek moom moo nekk directeur général bu radio diffusion télévision sénégalais di RTS kii di Bougane Gueye Dany ma ngay rafetlu bu baax xalaat bi nga xamante ne rek kii di Pape Alé Niang daal dina koy ba couvrir seen événement bi nga xamante ne rek doon nañ ko amal ñu dippee conférence de presse bi nga xamante ne rek doon nañu ko amal niki dimanche bi ñu génn yemoo fukki fan ak ñeent ci weeru sulet ci atum 2024 kii di Bougane Gueye Dany nag mu ngay rafetlu rek initiative bu rafet bi nga xam ne kii di Pape Alé Niang daal dina koy am ginnaaw ba mu ko félicité ba noppi rek nee na daal gullet RTS daal di couvriral ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci kujjee gi rawatina ñi nga xamante ne rek dañoo contre nag président de la république mu leen di couvriral seen i événement kii di Bougane Gueye Dany nag daal dinay félicité ci réseaux sociaux yi kii di Pape Alé Niang xamante ni rek moom moo nekk directeur général ba bi nga xamante ne am na ko daal dina cay yokk nag ne couvrir activité opposition bi dafa daal di rafet lool day wane nag na réew mi li di maturité ak démocratie daal mi ngi fi sax dàkk mu nekk mission principale boo xamante ne rek RTS ci jëmmi boppam rek jamono ji dafa daal di wane rek activité gouvernement yi waaye nag ma ngay jàngal askan wi ginnaaw ba mu couvrir rek ñeneen ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci langum politique bi nee na daal li des mooy ñu xool rek ba xam RTS ni mu ko commencé nii dina ko continuer di couvriral ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci opposition bi di kaddu kii di Bougane Gueye Dany moom njiital gëm sa bopp jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar